ñoo doon jàng alxuraan ju am solo ju neex jooju léegi di ko gunge ñi nga xam ne ñooy borom bis bi ca mooy ñi mokkal alxuraan di leen jégalu bu baax ndax ñii waajoon lim bi ëpp na loolu lool waaye waxtu wi moo ñu jot ba buñ ko toppee rek ba watuwut duñu àgg ci ñi moom bis bi wala buñ cee àgg dana fekk waxtu wi cate wala duñ ko defee na mu ko na mu ko bëggee ñoo leen sant bu baax a baax di sant ñi fi teew ñëpp ci kanam tuut incha allah ñu jàllale lu fi ñëw rek ci ay lis waaye xam naa ci fi ñu toll ñu ngi waajal ñi nga xam ne ñooy ñi waral bis bi ngir ñu waaj ngir ñu dugg si ci barab bi ñu fas yéene ànd ak ñoom ci seen jataay bii kon ñu ngi leen di séentu léegi rek ñu dugg si ci barab bi incha allah taala ndax ku xas mokkal téere borom bi tabaraka wa taala eh, nekkatoo gone kenn ndax dara doxul sa digganteeg eh, ak nubbuwa wala boog dara doxul sa digganteeg yonent bi solo sam wasallam lu dul dañ ko yónni woon ca yónni wuñ la waaye li nga xam ne mooy liñ ko yónni ci jaam ñi muy alquranul karim yàlla def na ko sab dënn bal huwa ayatum bayinatun fi suduri alladina utul ilm kon ñooñu ay kilifa lañ ñoom la ñuy néggandiku ñu ngi sàkk mbokk yépp ñu jug taxaw ñu jug taxaw teral alquran teral alquran teral kilifa yi nga xam ne ñooy dugg si ba ñu ñëw ba toog ci seen barab ñu doog a delluwaat toog kon ñu jox leen micro yi ñu gunge leen ci way yi bismillah marhaban bikum yéen ñu mokkal alxuraan ak si leen si jàmm ñun teral leen marhaban bikum yéen ñu watu téere bi ak si leen si jàmm ñun ñu leen marhaban bikum yéen gaay alxuraan yéen gan ci xeet wi yéen alxuraan marhaban bikum yéen gaay alxuraan yéen gan ci xeet wi yéen alxuraan ak si leen ci jàmm ñin ñu teral leen ak si leen marxaban bikum yéen kay alxuraan yéen a gan ci xeet wi yéen alxuraan marxaban bikum yéen kay alxuraan yéen a gan ci xeet wi yéen alxuraan ak si leen ci jàmb ñin ñu teral leen ak si leen ci jàmb ñin ñu dalal leen teg ci fukk ak ñeent marxaban bikum yéen ñu wattu téere bi téeméeri saala teg ci fukk ak ñeent yal na yàlla sàmm yal na yàlla barke ak si leen si dalal leen marxaban bikum yéen ñu wattu téere bi yéenay waa fi tasi yéena gën ci marxaban bikum yéen ñu wattu téere bi yéenay waa fi tasi yéena gën ci xeet wi yéena romb wajuri yéena doon yéenanti yal na Yàlla sàmm yal na wajuri yéena doon yéenanti

yéen teral leen ma xawawikum yéen gaayi alquran yéen a gan si xeewi yéen alquran ma xawawikum yéen gaayi alquran yéen a gan si xeewi yéen alquran ak si lan si jaww ñun ñu teral leen അക്സിലഫ്സി ജമ്പ് ഞെഞ്ഞുതലല്ലേ sëriñ Makodda Ndiaye moom it mi ngi ci jataay bi teel a ñëw lool sëriñ Samba Wañ moom it mi ngi ci jataay bi sëriñ Alhaji Fallou Seck bu C3S ak Alhaji sëriñ Seck moom it mi ngi ci jataay bi sëriñ Mbacke Strong sëriñ ma Balla Silla di ay sëriñ Daara ñoomit it ñi ngi ci jataay bi sëriñ Fallou Sàmm moom it mi ngi ci jataay bi Serigne Modou Silla Silla Bois moom mi ngi ci jataay bi xam naa bu ñu agsee ci kanam incha allah ci leeral ci diggante parrain bi ak invité d'honneur yeeg yooyu danañ ci gën a leeral incha allah taala sëñ Abdoulaye Cissé way juróom bu góor tudd Serigne Kademba Cissé way juróom bu jigéen tudd Soxna Fatima Kuute muy gane àdduna le 8 premier mois 2008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 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأغلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن لتدخلن المسجد المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا sadaqallaahul aziim jërëjëf sëñ Abdoulaye Cissé ñu bàyyi walla ak sëñ daara Cheikh Mouhamad Fadal Ndiaye mu ñëw jëw ci ñaareelu laaj sëñ Fall bismillah sëñ Abdoulaye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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم أخذتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم حسبك صدق الله العظيم jërëjëf sëñ Abdoulaye Cissé ci alquran ju sell ju neex jooju yi nga fay joxe rafet na lool mokk na lool wax dëgg yàlla ku xool at yi nga xam ne moom nga amee rek xam ne ndaw tuut tànk bu toll nii demagul fenn si mboroom def ci moom téere bi misaal la ci ne kenn ku nekk war naa mën a gaawantu ci xale yi balaa ñuy dem fenn mën a mokkal alquran sëriñ Moustapha gay mu ñëw jàngal ñu alquran moom itam di doom ci sëriñ Babacar Guèye ak uh, soxna Kumba Tambédou mi ngi fi ñëw mi ngi mi ngi gane àdduna le 17 11e mois 2007 moom itam boo xoolee ki fi njëkk a jàng benn at la ko la ko la moom mi moo ko magee benn at ndax kii mi nga am fukki at ak juróom ki mujjee jàng mi nga am si Abdoulaye Cissé mi nga am fukki at ak ñeent macha allah sëñ Moustapha dañ lay bàyyee ak Serigne Daara Serigne Fallou Ndiaye mu ñëw ak yow ci ay laajam sëñ Fallou bismillah sëñ Moustapha ginnaaw audu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim qul rabbi imma turiyanni ma yuwaadun bismillah audu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani irrahim قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها حسبك صدق الله العظيم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 تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله بالله ورسله ويريدون أن wa yuriduuna an yufarriquu bayna allahi wa rusulihi wa rusulihi wa yaquuluuna nuuminu bi ba'd nuuminu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduuna wa yuriduuna an yattakhizuu bayna dhaalika sabiila أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا حسبك صدق الله العظيم jërëjëf Serigne Moustapha ci njàng mu am solo moomu neex na lool wax dëgg yàlla ku déglu ni koy jàngee xam na sonn nañ ci yow ñu ngi woo sëriñ yuusufa ndaw mi ngi jànge ci daaru tanzil woy juróom wu góor di sëriñ mamadu ndaw woy juróom wu jigéen di soxna ndey aana géy moom itam moo xale yi fiy jànge ñoo tolloogun ay at ndax mi ngi toll ci fukki at ak juróom mi ngi juddu le 23 11e mois 2007 boo ko calculé ak 2022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 من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمان فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله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 بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأن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 يمدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن النصر إلا من عند mi am na solo lool lool lool macha allah ñu jàll ci suñu ñeenteelu dongo Mouhamad Lamine Diagne Mouhamed Lamine ma nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. su Mouhamed Lamine Diagne. way juróom bu góor di Serigne Massaer Diagne. way juróom bu jigéen di Soxna Adja Gajaga. mi ngi gane àdduna le 23 11 mois 2009. boo xoolee ay atam mi ngi toll ci fukki at ak ñett.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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أن يتخذوا اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئ أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا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 الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله بالله ورسوله ثم لم يرتابوا بأموالهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم حسبك صدق الله العظيم macha allah Mouhamed Lamine Diagne tari bi neex na lool takbir takbir takbir allahu akbar soxna faat lay euh, way juram wu góor di sëriñ abdul ahad lay way juram wu jigéen di soxna maam jaara sarr moom mi ngi gane àdduna 2010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 من نجواهم إلا من أمر بصدقة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا حسبك صدق الله العظيم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 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها آتيكم منها بقبس وجد على النار النار هدى فلما أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس توى ربك فاستمع لما يوحى حسبك صدق الله العظيم jërëjëf soxna Faat Lay ñu ngi ñaan ñëpp di màggal suñu boroom subhaanahu wa taala di waxoon allahu akbar takbir takbir takbir